di leen xamal ne euh, fan yi ñu passé le 20 février le 20 janvier 2020 directeur sécurité publique ñëwoon na fi def lancement opération sàmm suñu kaaraange 1 parce que dafa amoon ay xew-xew yu amoon fii ci Touba ak Mbacké ay acte de banditisme donc pour ñu jël euh, la sécurité des personnes euh, en charge mu ñëwoon def lancement boobu le 20 plan boobu nag un mois la duré woon tey la ñu toll ci njeexintal bu njëkk njeexintal bi moo tax ñu leen di jox résultat yi nii résultat yi nii la tëddee jàpp nañ junney junney nit ak junney nit ak fanweer ak juróom-ñeent bi ñu defee opération yëpp ci weer ci weer bi yëpp junney nit ak fanweer ak juróom-ñeent nit la ñu ci biir ñooñu juróom juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn nit pour vérification dante lañ leen jàppe fukk ak juróom-ñett yi pour maanaam ñi yor sineebar yamba ak li ak xeet yi ak xeet yooyu ñaar fukki ak ñaari pour vagabondage ñi nga xam ne kenn xamuñ fu ñu dëkk ay vagabon lañ dañuy ñëw di squatter di nekk ci boru marché yi wala boru jumaa ji kenn xamul fu ñu dëkk kenn xamul fu ñu jóge 92 pour ivresse euh, kii juróom-ñeent fukk ak ñaar pour ñi màndi di tërëf ci mbedd bi di tëdd ci mbedd bi fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne pour kii euh, fon euh, dilian si neebar fon fon fon dilia 15 pour 15 waaw 15 mooy moo bi donc jàpp nañ fi ña nga xam ne tamit dañu doon sàcc ay ay ay ay ay ay ay gàtt ñu retrouvé ci ñoom juróom-ñeenti gàtt ci drogue bi jàpp nañ juróom-ñeenti kilo ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom gramme ya nga xam ne ci sineebar lañ ko jàpp ak cornet lu tolloog juróom fukk ñaar cornet ak juróom ak ñaar ci cornet ak 6 juin maanaam li ñuy ràbb noonu di ko tux 6 juin donc ci gàtt yi jur Euh, gis ci sàcc yi toll na ci juróom-ñetti euh, jur ci band yi ñi nga xam ne nag euh, moom la ñu démantelé maanaam ñi nga xam ne dañuy lëkkaloo di def ay naka su noonu ci kër yi di sàcc ak yooyu demante nañ ci am nañ ci ñaari band yu ñu ciy jàpp benn band bi ay ay xale la yu yu toll ci ay fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent mais juróom-benn xale lañ ci jàpp ñi nga xam ne dañu leen jàppe association de malfaiteurs maanaam dañoo lëkkaloo di dugg ci kër yi di sàcc ay téléphone di sàcc ay écran plat ci attaque bi amoon tamit ci euh, Eltonu Mbàkke bi euh, ki nga xam ne moom nañ yaakaar ne moom mooy jiite woon band bi euh, mujjoon nañ ko teg loxo commissaire Mbàkke def na ci liggéey bu mucc ayib tegoon nañ ko loxo ba ci enquête bi sax gis nañ ne ci fan yi ci gannaaw bokkoon na ci ñu benn bande bu sàccoon benn oto ci biir Mbàkke foofu Euh, barkaat démb tamit commissaire wu guy mbind jàpp na euh, ceeb ba nga xam ne euh, kiiwul ceeb yi nga xam ne setul maanaam impropre à la consommation lu tolloog ci 4 quatre cent grammes moom la jàpp léegi enquête bi mu ngi wéy am na kuñ ci teg loxo donc procureur jot na ci kii bi ci enquête bi ñu ngi koy wéyal suñ demee ci circulation routière bi jàpp nañ ci euh, contre pièces yi ñi nga xam ne moom lañ jàpp toll na ci ñetti junne ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay pièces yu ñu jàpp oto yi nga xam ne euh, amuñu këyit wala nekkuñu ci yoon ñu té ñu téye leen ci commissariat bi toll na ci ñaar euh, ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent oto yi nga xam ne def nañ mise en fourrière moto yi jàpp nañ ci juróom-benn téeméer ak fukk ak ñi ak juróom-benn moto yi nga xam ne immobilisé nañ leen donc loolu mooy résultat yi ñu yu ñu yu ñu yu ñu def ci weer bi maintenant pour li nga xam ne mooy moom lañ dëgmal suñu kanam mooy perspective yi euh, jàpp nañ ne euh, opération sàmm suñu kaaraange bi am nañ ci am nañ ci satisfaction ba tax na dañuy directeur dafa ñëw tey pour lancer euh, deuxième phase bi buy commencer samedi. ba le 20 avril donc ci ñaari weer lañ koy def deuxième phase bi suñ ci àggee tamit dañ leen owaat ngeen ñëw ñu wax leen résultats yi ñu ci am. ci declaration commissaire spécial Touba résultat yu mu génnee wone na ni que kaaraange ci Touba ak li ko wër alhamdulilah mu ngi dellu si ndànk-ndànk. fu mu nee nii mun nañu ni wax ni la situation est calme et maîtrisée ci tur ministre de l'intérieur ak directeur général de la police nationale ak directeur de la sécurité publique maa ngi lancé officiellement l'opération sàmm suñu kaaraange 2 ba nga xamee ni day dure ñaari weer bu passé bi benn weer la woon mais bii ñaari weer lay lay lay durer euh, pour que ñu maintenir dispositif c'est-à-dire que liggéey bu bu am solo bu ñuy def ci terrain bi nañu continuer di ko def nañu continuer di saytu euh, di def ay patrouille ci euh, diwaan bi yépp Touba Mbacké ak lu ko wër ñu continuer di di nekk ci terrain bi di saytu bépp ñaawteef bi nga xamee ni euh, mu ngi buggu euh, laal population yi wal wàll wàll dëkk yi wàll dëkk bi donc euh, nañu continuer liggéey bu am solo boobu ba xamee ni commencé na indi ay résultats yu wóor